asalaamaaleykum cher ami internet yi safee elvision Média ak cher abonné yi nga xam ni yéen a wóoru El Média safoo ko tey nag euh, ñu ngi seen émission bu bees tàq bu leen elvision Vision Média andil muy 20 minutes avec 20 minutes avec moi, ñaar fukki simili ak ak ku mëna doon mën nga nekk sax poteau devant ñu fekk la fi nga tok, dékk la suñu caméra ak suñu micro nga wax li la sopp ak li nga bëgg wax 20 minutes avec bàyyiwul kenn ak fep fo mëna nek rek mën nañ la fa fekk Tay nak ñu ngi fi ci Géejawaay fekk ci fi ko xamanteni ni si doomu Géejawaay la muy monsieur Mamadou Thiam Nek coordonnateur u Manko taxaw Sénégal fi ci département Géejawaay yor parti POPAM PNG parti nouvelle génération ànd ci PNG bi tamit ànd ci Malik Gako pour Grand Parti ñu taxawal suqali avec Malik Gako, 2019 en même temps aussi il est enseignant parce qu'il est directeur école euh, il est directeur école privée la réussite bi nga xamante fi a tamit ci banlieue bi ken Je ko présenté mom lañ seet tay am ak 20 minutes avec waxtan ak lu mu moom mooy kan ak lan la bëgg a doon ak lépp loo xamante ni si tey mu ngi ci la ak kañ la dugg ci langue politique gi ak lan lay waajal ak lan mooy ay plan de travail fii ci Géejawaay ak fii ci Sénégal. papa maa ngi lay nuyu soxna aw Alain. Mm-hmm. di la jaajëfal. di la ziar. yow ak sa équipe. maa ngi lay nuyu di nuyu waa El Vision Média. di len nuyu di len eh, sargal di len souhaiter aussi bonne fête de fin d'année merci soxna aw ay ci monsieur tiam ñu lay jajeufal bu baaxa baax nuyu bi amna solo fi may njëkkee ak yow rek parce que fonction yi nga xamanteni ni noté nañ ko fi pour monsieur tiam bari na donc kon yoon la mbokk téléspectateurs yi gëna xam kan moy monsieur tiam bu may commencer ak yow dama lay wax euh, kan moy monsieur tiam merci euh, soxna Awa parler de de Mamadou Cham, parfois c'est facile et d'autres fois c'est un peu difficile euh, yomb na yombul waaye danañu jéem man maa ngi tudd Mamadou Thiam euh, nekk un jeune sénégalais nekk aussi opérateur économique di information de formation nekk chef d'établissement un enseignant euh, dëkk nag fii si Guédiawaye si banlieue bi nekk fi un acteur de développement suqali ko fi dëkk fi donc bu dee loolu doy na la hmm? mun nañ ba yam en tant que Mamadou Thiam hmm. bu dee ay titres yi nga xam ne mu ngi suñu ndodd hmm.

Nous ak seeni doom 2019 euh, bu bu forcément alors nous en 2012 j'étais à l'octobre directeur de campagne de candidat l'idée m'est venue de euh, créer notre parti parce que comprendre nañu né ané yi di ñëw mag ñi ñëpp am dañuy dem est ce que ñun dañu wara a ñëw topp ci parti classique yi fi amoon top ci sen ay fonctionnement wala top len ci sen ay façon yu doon doxalee nous on a décidé de faire autrement ñu né ñun dañu taxawal ba suñu ay langue ak ay suñu nit ak ba suñu mbokk suñu ay xarit juk andi lu bess lolu motax parti bi buñ ñu tuddee ko parti nouvelle génération mooy def autre chose que ce qui se faisait auparavant mooy andi lu bees doxalin bu bees ba gis-gis bu bees ak organisation yu bees loolu moo tax mu nekk un parti boo xam ne fii la sosoo exclusivement à Guédiawaye ay doom waa Guédiawaye ñoo ko taxawal mu nekk une fierté ci banlieue bi ndax it souvent lañ daan tàmm di gis mooy ay parti yoo xam ne ay nit ñoo koy sos dëkk ba feneen waa Guédiawaye daw dem ko lang alors ba ñun nag puisque li ñu am fii lañ ko investir on est fier d'être à Guédiawaye nous on représente Guédiawaye moo tax ñu créer un parti qui s'appelle parti nouvelle génération composé essentiellement de jeunes de jeunes cadres hmm, te nous ñu am taxawaay si fi ñu dëkk am ay idéologie bees suñu euh, ligne mooy patriotisme nationaliste loolu mooy suñu ligne donc euh, loolu moo sos moo mbébét euh, mm. parti nouvelle génération. waaw foofu laay jëlee waat rek ba tey ci parti boobu nga xam ne jiite nga ko. Mm-hmm. parce que ñu fi créé ay coalition ñu fi créé ay parti bari na. ñu mm-hmm. dañuy jokk. jële fi mag ñi mhm. ñoom andi sen sen sen sen yifu bop mhm. ñom andi lo xamanteni moy jëmele Sénégal kanam mhm. ñi fi créé ay parti ak coalition bari nañu mais bu dé yeen ñi nga xamni ne nek parti opposition yi gisagoo leen changement ba tey am na ñeneen ñu leen fi jitu est-ce que tay ban yaakaar ak fan ngeen tek sen bët ni yeen loolu fi nek mën ngeen ko dindi en même temps yéen mën ngeen a ñëw tëddal seen projet bop pour jëmele Sénégal kanam voilà merci bu li nga wax c'est important pourquoi c'est important moy nous avons fait def ni ñeneen ñi parti wala nga dem ci Sall mu am la jox nga ki man j'ai été reçu par Macky Sall à maintes reprises on a discuté mais euh, on n'a pas jugé nécessaire de fonctionner avec lui Nous ñun fait nekkat euh amna lu ak loo xam ne war nañ ko ba apporter ñëw ñu rek pour ne dañuy ñëw taxawal parti pour def li nit ñi daan ko def mooy dañoo bëgg andi ay rupture mooy ay valeur éthique parce que ñëpp mënu ñoo bokk ci benn pàcc il faut que am ñu féete ci bor bi ñiy féete ci bor bale pour démocratie ak équilibre mën a am donc nun ba comme parti yëpp nga xam ne bu leen di jox récépissé seen article bi njëkk article bi bët nañ ci bind la conquête et l'exercice du pouvoir donc ni ko Ablaye Wade defee woon à lay Ablaye li def ko à l'époque Moustapha Niasse def ko ak keneen ak keneen ak créé seen i am ay seen ay courant de pensée dug pour wuti réew mi ñun loolu moo ñu yëkkati te si loolu lañuy dox

ba sax yéen parti au pouvoir dañuy wax carrément que Manko Taxawu Sénégal. Mhm. <laughs> mooy loolu des fois problème tout. Mhm. ma rek Sénégal. Euh, Manko euh, dafa doon avant les législatives. Mhm. pour ñu ànd ñun ñëpp législatives yi on avait un coordonnateur ba national ba tudd El malik Malick Gakou moo au niveau national national mhm. y avait pratiquement euh, ay du parti bari ñu ngi ci woon mhm. alors euh, biñ demee ba ci bir le le pouvoir ak ay responsable politique yo xamné sen bop ak sen poste kese moo leen tax a jóg ñoo yàq la manko loolu ma taxoon ñu am fukki manko ak juróom ñaar kon kay kon kay rumeur yi dëgg la yeen euh, ki da ngeen di ki takale ni rek mais manko nekatu fa en vrai manko bi muy juddu du manko bobu instant mo ci mo fi nek wa effectivement mm. wax dëgg fi yalla amna changement mm. bi ñuy si élection yi ba légui amna changement ndax la manko en tant que tel daanaka existé tul mm. waaw la manko euh, existé tul parce que amna ñu dem amna ñu changer position amna ñu rejoindre entre temps le pouvoir amna na ñoo xam ñu ngi fi ñu nekkoon ba légui mm-hmm. mais manko bi mom euh, du ma ne problème à 100 mm-hmm. mais fonctionné à 100 waaw question de beru bobu ñi dem mm-hmm. feneen ñi séti lenen fofu lay ñëw ak yow. parce que du ñu xoolee ba tey say <laughs> titre. yaa ngi da nga andi sa PNG bi ak grand parti bu Malick Gakou. koy saluer de passage. nga ñëw ngeen def coalition suqali. Mm-hmm. ah ñi jël yoon bi ñi jël yoon bi monsieur Thiam daal dem ànd ak Malick Gakou. Mm-hmm. ah benn intérêt la benn benn benn benn plan de travail la wala mm-hmm. suqali bi ngeen wax en tant que waaw wax xam nga ñun mënuñoo dox ci intérêt. ndax ñun nekkuñu ay politiciens yu xiif. topp ñu ay intérêt personnel man je pouvais être avec Macky ñu jox ma ab post ma toog fa toog. nekk ci loolu ñun dañoo xool analyser ne kat bi jaxasoo na am na fi ay leaders yu bari yoo xam ne li ñuy wax dëggu wut ci ñoom dañuy yuuxu pour ñu am lu ñu leen jox ñun nag li tax ñu choisir ànd ak gàkku mooy d'abord c'est un frère c'est un grand frère pour moi c'est un nami boo xam ne ànduñu ci ci ci naxante dañuy waxante ay dëgg bu ko jaree ñu gis ne c'est un candidat sérieux boo xam ne dafay participer ci élection yi am intention participer xeex pour représenter dëkkam ak askanam. alors puisque am na fi ay candidats yoo xam ne am c'est des pions de Macky wóorul nga ànd ak ñoom ndax it am naa ci ay xarit. Mm-hmm. Euh, ñu choisir ñun Malick. Mm-hmm. ndax it c'est un jeune parti nous partageons wala banlieue nous avons les mêmes idéologies. Mm-hmm. ñu bokk ma gis-gis ci ay points yu bari suñu ñaari parti yi euh, xamante nañu bu baax donc comme niñ koy waxee rek booy lëngoo da ngay lëngoo koo xam ne yéen a bokk ay principe mm-hmm. Malick c'est un c'est un grand mais c'est un jeune bu leader ambitieux qui veut vraiment apporter euh, bëgg na dugal loo xam ci fonctionnement réew mi mm-hmm. loolu moo tax ñun ñu décider bi ñu waxtaanee ak les responsables ñi nga xam ne ñoo seq la parti ñu analyser ko point par point càmbar ko bu ñu ne kii nañu ànd ak moom ndax am na lu muy incarné am na valeur ndax it Malick ku ko ki xam xam ne yorul ay nombo ah, tànk kenn mosu koo taqal si réew mi ne loxoom taq na wala am na lu mu jël wala am na lu mu laal loolu lépp amul si Malick donc ñun lu moo tax ñu choisir ñu ànd ak moom voilà Malick Gakou kenn mosu ko dégg ci ay coowu luubal wala leneen ak leneen euh, yoon la ku nekk ak ki la neex nga ànd ak moom waaye dañuy wax de tout temps que ni Malick Gakou dafa yor ay teraanga yoo xamante ni si moom dalay seet si wala mu nangam ak sàngam la ba tey foofu nangoo wax parce que yaa ngi ci gis léegi dañuy wax Malick Gakou est-ce qu'il est candidat yow mi nga xam ne yaa liggéey ak moom. waaw teraanga yi ñuy wax si Gakou nag. Mm. non man ak moom séquñu loolu. ay mm-hmm. principe moo ñu boole. Mm-hmm.

taxaw déclarer ko fu ne defal un programme crédible kooku jàpp nañ ne c' est un candidat. un candidat waaw c' est un candidat sérieux il faut ajouter ça. un candidat sérieux ayca monsieur Thiam moo wax loolu nee na Malick Gakou est un candidat sérieux kon mu ngi noonu léegi dañuy daal di génn tuuti ci monsieur Thiam daal di ñëw nag ci actualité comme ni ko émission bi laajee. Mhm. actualité bi dañuy laaj dañuy laal monsieur Khalifa Sall. bi mhm. nga xamante ni si moom tamit opposant la. Mhm. te jamono ji euh, mën naa ni ñi ngi naan mu ci langue gi. wala nekkul ci langue gi. yow tamit mën naa ni opposant <laughs> yow léegi nan ngay jàngatee li nga xamante ni si instant yi bu doon def actualité politique euh, mooy problème mu Khalifa Sall bi. waaw Khalifa. dañu ko ëpp doole tooñ ko bëgg a nangu mairie bi bëgg ko empêcher mu postuler amul leneen c'est un problème politique loolu kese moo arrivé Macky déni d'ambition nag yàgg na ci réew mi dañoo nekk ak waa joo xamante ne ñemewul jàkkaarloo ñamewul jongante muy le président Macky Sall man dinaa ne c'est pas un gentleman parce que ni muy taxawee nii ak di ko doxee bu ko Ablaye Wade defe woon noonu moom du doon candidat Abdou Diouf bàyyi woon na jeu bi mu ubbeeku comme moom dafa war a ànd ak dal mu xam ne réew mi ñun ñëpp a ko bokk xalifa c'est quelqu'un boo xam ne yàgg na euh, bokk ci fonctionnement réew mi am na lu mu fi tekki dafa xeex mairie ba gañe ko à deux reprises kooku am na mérite bu bëggee ne dafa euh, bëgg laaj réew mi mu jarale ñu emprisonné ko nii dañu gis fi mairie yu bari mën na ñuy fonctionné ñu ko jiitu si mairie ba neen nii lañ daan doxale mu tëjuñu leen inquiété wuñu leen mu am fi ay mbokkam ñoo xam ne si parteem ba la bokk di doxalee noonu wala ñuy doxalee ba lu ko raw te kenn arrêté wu leen comme dañuy jàpp ne c'est un problème politique moo tax ñu jàpp ko pour empêcher ko mu doon candidat mais y a rien de sérieux ci liñ ko war arrêté. kon su ma la déggee ba monsieur ci nee na carrément que ni monsieur Khalifa bi nga xamante ni si euh, moom am na ko affaire de politique donc moo ko lal que ni li ma bëggoon posé candidature te tamit teg na ci ni euh, monsieur Macky Sall mi nga xam ne mooy suñu président de la république moom ñemewul càmmaarloo léegi nag damay ñëw ci cappaandaw gi man de dama for ci weewu tànk ñu dangaa bëgg postuler maire Guédiawaye hmm. maanaam maire de la ville bi nga xam ne frère Macky Sall muy Aliou Sall moo ko jiite. waaw euh, loolu moom euh, daanaka nekkatul sax un secret hmm. man je suis candidat à la ville de Guédiawaye hmm. néew ma euh, maire bu Sam Notaire néew ma maire bu Gonaas maire bu Guédiawaye laa wax mooy bi Aliou Sall sàcc si loxoy waa Guédiawaye ñun ay doomu dëkk bi lañu màggee fi tekki fi benn waay jóge ne mooy raqu président euh, xamuñu fu mu ko jëlee ay moyens ñëw imposé wu naxasaala bu dugg toog kooku lañ fi bëgg mu jël bi ko ay donc man je suis candidat koy annoncé encore une fois que ne si mbër yi jogante maire bu Géejawaay ku yow nga sóoraale ma bu baax a baax a baax te xam ne am nañ ci sumb bu baax a baax a baax te bu lu mu laaj incha allah danañ ko def. ayca mu mu ngi noonu mu ngi ku nekk am nga ci <laughs> mu ngi noonu léegi dañ lay wax rek sa mot la fin parce que l'émission tire à voilà euh, le la fin mooy ba di leen remercier. Je di encourager parce que li ngeen def ni aussi c'est pas évident parce que les jeunes une vision taxawal benn affaire au niveau de la banlieue jóg di ko essayer promouvoir di déplacer wu di jël ay entretiens et tout ça c'est à saluer c'est à encourager je pense que ne les bonnes volontés yi nekk ci dëkk bi war nañ leen xool bu baax xool nuñ ko accompagner parce que je pense que ne amal na euh, population bi ak nit ñi donc euh, bon nous en tant que acteur en tant que ay doomu ba dëkk bi euh, ñu koy rafetlu di leen ñaanal di leen encourager le mot de la fin mooy ce qui se passe réew mi nag mu ngi bëgg a jéggi dayo avec le conseil constitutionnel mm-hmm. mi nga xamante ne ñu ngi valider am ku leen neex donc ku leen neexul ñu éliminer ko. muy wàllum parrainage bi. muy parrainage. Mm-hmm. man je demande à tous les leaders de refuser le parrainage. il n'est pas encore tard. je demande à ce qu'on repousse les élections. Le constitutionnel joxe le constitution bi. nga ne ñu ñu dindi ko. man dama ne. Mm-hmm. je reconnais pas le parrainage. anduma si euh, parrainage bi. Mm-hmm. d'accord ma si. je l'ai dit à beaucoup de leaders man leen il faut que nous constituions jug le le parrainage parce que kat on ko baye mu jall ni ci façon bi mu don ab jeu boo xam Macky Sall moko taxawal buñu ko ci euh, topé ñu may mu jall au premier tour ndax it lépp lu ci def c'est sur mesure pour Macky Sall donc nak ma ngi demander à tous les leaders de recuser d'abord le conseil constitutionnel mm. Hmm, mm. et demander à ce qu'on repousse les élections man loolu laa ba loolu laa wax mooy sama ba gis-gis moy sama mot de la fin di sante di gërëm ñun ñëpp. ayca mu ngi nonu sama réalisateur bi Saliou ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu àndoon ak yéen ci cette émission Bes Tàq bi leen évision média Médias àndil muy 20 minutes avec. damay gërëm nag équipe El média bi ma ànd yëpp yëpp yëpp Saliou caméraman Marème ci maquillage bi. di leen gërëm te di leen jox di daje nag di leen jox di daje très bientôt ci beneen numéro émission ak beneen invité merci beaucoup.